juróom ñetti rakka la rakka bu ju nekk da ngay jang fatiha ak iza jaa nasrullahi wal fath juróom ñaari yoon rakka bu da ngay jang fatiha ak iza jaa juróom ñaari yoon min na ko ku saraxe junni dinaar jonne goral junni jam la la jinni ñi xif te des na nangu ak jullem ak koram kooram te des na ko musal ci ayu adna ak ayu alaxira yépp bis penc ba dana bokk ci ñi nga xam ne duñu ñàq duñu tiit te des ni ko ràmbuloo ci ñu waroon a dem sawara lu ko soob mu yombalal leen àjjana te deesu leen xisaab naafila gi guddik fukkeel gi ak ñeent naafila gi juróom-ñetti rakka la rakka bu ci nekk la ngay jàng faatiha ak izaa jaa juróom-ñaari yoon أمري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته